Sénégal na ngeen abonné bitim réew na ngeen abonné KBN na sikkal abonné daaru maam Omar dëggaam woo ko mu ñëw siyaar conférence bépp xew kum ci dem sa xew dana siw raasi leen ko yéen ñi dafay loolu itam nag tey muy tànt boo xam ne tànt si di Bachir la Bas Kéemaan di doomu Baye Alaye Taye suma waay mooy sama waayu bopp du ma waayu kenn yàlla boole maa moom ah léegi duma ci sori ndax Baye Taye moom maay sori ci moom li ma xam ci moom bëri na mooy borom boppam neen ba ku ko xamul mooy borom boppam neen ba ki nga xam ne xalifa Bachir du jox te dem ñaar lool kooku mooy Serigne Taïf moo nëbbu ba dem moo ñu nëbbu léegi ñu mën ba dem mooy Sidi Alay Taïf moo dund moom mënu bas ñu ngi ko wax bas kéemaan ànd ak rakam ak magam gis ci seen dëkk bi nga xamee ne tey ñun ñooy seen gan waaye ñoom duñ suñuy gan léegi bas kéemaan bu ma ci sori waaye danaa ci wax dara loo xam ne moom bas xam na ko te ba mu koy xam mu la ma ci xam ci baskemaan bàyyi ko bu tuddee baskemaan man Mbaye Seck maa ko wax ci digg mbiri na ndawe ba mu koy tuddee baskemaan mu ngi ne guddi tuuti xam mbir mu feeñ ci moom ma toog ak Baye Taye mu ne ma gune gii na ko yàlla dundal gis naa ci moom mbiram kéemaan sa bàyyi gaa laaxira maa ngi fii moo ma ko yaakaar naa boo amee juróomi at wala ñetti at ci ngay war a toll sa bàyyi moomu ko jarul daa xam ne da ngeen feeñal dara yéen yëpp nag yéen a di feeñal dara waaye di tax ko dafa nekkoon sama waay xamal ma ci yow dara waaye ñaanal naa yàlla ne bés bu mel nii tey ñëw nga toog mi ngeen ndawee ma wax ko dégg say mag wax ko dégg ko say rakk wax ko dégg ko bu ëllëgee say bàyyi yéen ko dégg ndax li tax ma ñemee koy wax am tuuti ñemee koy wax moo de si ngeen man Mbaye Seck su ma yeboo ne sant yàlla ba mu bëri ndax buñ seetee El Hadj Ndaw ñi nga xam ne jëm jëm na araw teg ko ci seen tànk ne nen baa ca laa Ndaw ca laa bokk te yaakaar naa ci biir la sant yàlla na kii nag mooy baskemaan amul ko dara dama mës a romb kër Baye Bass bu ñuy toog ci buntu kër gi yaakaar naa doy Baye yaa ngi Bass yaa may dugg ci kër gi ba may dugg sama mbir ay ndoyu sumi samay dàll wëlbati ko solaat samay dàll di dem ci gi ñu may tax mu ñu di nga seen deret yi la sumi dàll yoru leen deret deret caaxaan deret jigéen yor ko peesoon ci poids benn poids bu ko attan néew ci suuf bu di ko danaa ko nuyu jox ko ca màggal ko ndax su ma dee dem añu danaa leen xamal ne leen tànt bi képp ku ko romb barke alaaji Mor Ndaw bii toog fii ci dëkk bi ay si tam toog fii tey moom alaaji Mor Ndaw mu teew ci dëkk bi toog fi ak téléphone bu njëkk ak ñi njëkk a dem alaaji Mor Ndaw ñëpp ñu ci tànt bi tey toog ku ko waat ku ko gën doo nag kon nag tànt bi tey képp ku fi toog boo dee xaga na nga jëm li ñu teree dox suñu a sant nañ bu baax sëñ Bas yow ak ñu mu àndal njabootu Baye Habib njabootu ndaw ndaw ndaw ndaw

déggoo bi yàlla yalla dolli ko di leen xamal daal ñu gis ci yéen bu baax suñu yaakaar dëgër ci yéen bu baax a baax ñu ngi ñaanal yàlla def leen mag fàttu leen sàmm leen jotaay bi yàlla na yàlla ko ñu tëjee kàddu yi bëree bëri bu jaay suñu sallallahu alayhi wa rahmatullah mi ñu fi bi di jël di wax taataan li muy wax gàmmu ga neex na te taxut nga xam lay gàmmu la sëñ ba doon wax doo ca jëfandikoo lenn taxut kenn di def gàmm na ngeen déglu sëñ bi mu wax ngeen déglu ko ci seeni xol téye ko ci seeni euh, xel bu ëllëgee ngeen jëfandikoo ko bu ëllëgee mu dolli mu ak dollee ko jiir ba rek ak na si rek a fi ne jërëjëf

فيها حمام باثباتا وبالكواكب يا كريم يا وسلم عليه بسرمة مقاتبات رغم السماوات واحد يداها بشمسها أرحام باسقات وبالكواكب في بلقاء بالفادها يا أمان يا أمان من الجهات واحد يداها بشمسها أرحام باسقات وبالكواكب Amen.

الكواكب إيه في اليقان مفلحا من كنت رده أجمل قلبك يا وارد يبان أدوك في شمسها أرمان كاذبات وبالكواكب في اليقان صل وسلم عليه سرمدا أبدا ولا بواسبيا وارد يبان وبالكواكبية في بغدا أنت جاءت النبي تنال نفذه مصر ما ربايا سمعت يها أدوت بي سنسيا أرمان باسقات وبالكواكبية في بغدا الأبان محتميد على نهادك يا سماك يا بابا أدعوك بالشمس يا رمان باسطات وبالكواكب يا ريح يا بابا الحبيب إلى الأباء طريا سمعت يدارا بالشمس يا أرمان باسقات وبالكواكب يا هيم يدار لذاك سائلا عن ظهر ومهربات ولا رسيبك يا سمعت يدارا أدوك بالشمس يا أرمان باسقات وبالكواكب يا بالكواكب في غيطا وفالبصيرة يا رمان مبصرة وتالبصيرة يا رمان مبصرة وتالبصيرة يا رمان مبصرة وتالبصيرة يا رمان مبصرة وزدت يا رمان مبصرة وتالبصيرة يا رمان مبصرة وكم بصيرتي وما نمخ سلاما وكم بصيرتي وما نمخ سلاما وكم بصيرتي وما نمخ سلاما وكم بصيرتي وما نمخ سلاما وكم بصيرتي وما نمخ سلاما وكم بصيرتي وما نمخ سلاما البصيرة يا رمان مبصرة وكالبصيرة يا رمان مبصرة كالبصيرة يا رمان مبصرة وكالبصيرة يا رمان مبصرة وكالبصيرة يا رمان مبصرة وكالبصيرة يا رمان مبصرة البصيرة يا رمان مبصرة وجه البصيرة يا رمان مرسلانا عن بصيرتي يا رحمن مرسلانا عن بصيرتي يا رحمن مرسلانا وجل بصيرتي يا رحمن مرسلانا وجل بصيرتي يا رحمن مرسلانا وجل بصيرتي يا رحمن مرسلانا وجل بصيرتي يا رحمن مرسلانا وجل بصيرتي البصيرة رمان مغفرة البصيرة رمان مغفرة البصيرة رمان مغفرة البصيرة رمان مغفرة البصيرة رمان مغفرة البصيرة رمان مغفرة البصيرة رمان مغفرة البصيرة المغفرة وكالبصيرة وما المغفرة وكالبصيرة وما المغفرة وكالبصيرة وما المغفرة Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, بصيرتي يا أمان مبصرة تاوة البصيرة يا أمان مبصرة تاوة البصيرة يا أمان مبصرة تاوة البصيرة يا أمان مبصرة تاوة البصيرة يا أمان مبصرة تاوة البصيرة مبسمة وكالبصيرة لمان مبسمة وكالبصيرة لمان مبسمة وكالبصيرة لمان مبسمة وكالبصيرة لمان مبسمة وكالبصيرة لمان مبسمة وكالبصيرة لمان مبسمة बसीरती आहे बसीरती रमानो न बचल बसीरती आहे

وزيرتي يا رحمن مغفرات وتر بصيرتي يا رحمن مغفرات وتر بصيرتي يا رحمن مغفرات وتر بصيرتي يا رحمن مغفرات وتر بصيرتي يا رحمن مغفرات बसेरतया अमान मुफसदत वजल बसेरतया अमान मुफसदत वजल बसेरतया अमान मुफसदत वजल बसेरतया अमान मुफसदत वजल बसेरतया अमान मुफसदत वजल बसेरतया अमान मुफसदत वजल बसेरतया अमान मुफसदत वजल बसेरतया Aman البصيرة يا رحمن مبصراتها وكالبصيرة يا رحمن مبصراتها وكالبصيرة يا رحمن مبصراتها وكالبصيرة يا رحمن مبصراتها وكالبصيرة يا رحمن مبصراتها وكالبصيرة يا رحمن مبصراتها وكالبصيرة يا رحمن مبصراتها أقبل قلبي مبازقة وبالكواكب في مرضى أطاو زايدة يا ما نطه أطاو قلب زوراتيا سماك يطا أدوك بالشمس يا ما مبازقة وبالكواكب في مرضى Yeah.

الكواكب في الميدان وبالكواكب بين الميطان Amen. pela mais de largar O peruca lá que beia Vem, Goiânia Sénégal na ngeen abonné bitim réew na ngeen abonné KBN si kël abonné daaru maam Omar da liggéey lépp lu ci daaru salaam mbaa mu daaru salaam dañ fa yónni Amadou Daam mbaa ku mel ni moom ci liggéey ko am gaamu woo ko mu ñëw siyaar ko feraas bépp xew kum ci dem sa xew dana siw raasi ko yéen ñi dafay